kenn du Serigne Babacar Sy kenn du Serigne Babacar Sy kii dama force mbedd mi wayi may woy Serigne Babacar Sy nee naa bi ma ñëwee Almeria ba léegi kenn xamul fu ma nekk si saal laay fi naan kii mooma si mbedd mi ngir jëmmi sëriñ Babacar Sy indi ma këram gi dara manqué wu fi xalifa yenan gërëm naa la Setianan garam nala sabai malik garam nala baay binti bi nax papa lalu la sëriñ Babacar si defal sëñ Babacar lima ma defal Cheikh bi rëy na de li ma defal man ma ko sa wax nit si bir géej gi ma sama soal nek jigéen wér ndeysaan fekk na tudde naa sëñ Babacar tudde naa moom Maodo ndeysaan mun ma sa mun ma sa jabar bu sendiri la ma ma sa jabar bu wusine tudde ko mohammed sa xam bo sa xamal ma am ndaysan ma tasante sama benen jabar mu ni ma sa jabar wusine ma ne ko la ma mu ni ko tede ndaysan muy goor ma tudde ko mohammed tay seigne bab ma ñew fi sama xel ci yar la ibu sabo ibu sax waxon neena bo demé ba jaxla sétal sa borom loko mas defal nga tek sa kanam ndaysan mané man mi dal xamna ni buma faane fi tay ji dana xil ligel ma seigne babacar dara fi ma waxe ak ben way bi mo ñew dima jël ci ben la allah akbar fanan ci ben yon la fanan sa kima for borom fa la nek fa nan bi set am liggey ba fi ma toog nii sëñ Babacar mom manuma sax fa ya xayu ya xayu mu allah rabbana ilayka tawassalna bi xayri bariyati lan la sëñ Babacar si defal. sëñ Babacar si xaw ma sax li ma defal si. ndeysaan mënu ma ko wax daal. ndeysaan doomu doomu aadama damaa bàyyi lépp yàlla. ndeysaan bis ba ma gën gënee xalaat bis ba ma gënee xalaat naan lii nangam ak nangam. Mm-hmm. wala ma toog julli tàllal sama loxo. Mm-hmm. bu ma yeewoo suba wala bu ma gëstoo danaa li ma li ma soxla mu ngi sama kanam. billaahi wallaahi taalaahi. li ma wax yàlla moo xam nit boppam sëñ Babacar mi maa defal loolu fii. ak fa dëkk. est que lu mu jëmbat rek xalaat ni lii bëgg naa ko bu àndeek dagal suñu borom bala maa borom dana ma ko defal. cey Sëriñ Babacar tey sant de. man dahaaka in lam yakuni Sëriñ Babacar si Malick. mustaxjilan yaanis adal mustakini mbay. adahuka yaa rabbal wara rabbal wara yaa rabbi an taksif ana daraara papa la mooy secret suñ Babacar si suñ Babacar sel sel julli juróom moytu mooy yàlla moytu lu bon moytu fu nu kaa waxee sa bu ko fa jëf ndeysaan taalibe sëñ boo demee ba nekk si ay jafe-jafe jàq-jàq tourneel nga xool sa bopp xam ne fa nga jëm du foofu est-ce que est-ce billaahi wallaahi